bismillahi wa ala millati rasulu manhajil qadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yi ci gungeb gàmm gi eh, dama koy eh, adressé njaboot gi ñi nga xamante ne bi may seen jëwriñ ndax li ñu may nettali nii moom la Sëriñ Moustapha wax bu Moustarchidine ci gàmm gi loolu ci niñ ma ko nettalee doo doonul loo xamante ni bi lu jar kenn di ko kenn di ko metti lu wala yu demee noonu déedéet dama daan wax njaboot gi rek te foofu xam ngeen ni ay mbokk ak i soppe ñoo fa nekk muy mustarshidin wala mustarshidat bu dee moom ci boppam mi ko jiite waaw moom ñi mbokk ak ñëpp foofu ay soppe fa nekk wax dëgg yàlla ak i moo tax nag bëgguma ku dégg ay waxam ba ku wax bu nekk ak na nga koy déggee waaw xam nga kilifa bu waxe ba nag te xamoo fu mu teg wax ji Eh, ak eh, noo koy interpréter man dama bëgg kuy interpréter waxuma moom waaye man sama ku nekk booy interpréter wax interpréter ko positivement bañ ko interpréter négativement te interprétation bi sax jarul véhiculer ko jaru ko jarul véhiculer kilifa du wax ba noppi man ne ko temps loolu waxoon naa ko fi ne woon naa kilifa bu waxee ba noppi waaw fa mu teg ay waxam bàyyil ko ko fa tegal ko fa bu ko jéem a tegal feneen waaw man li ma leen bëgg a leeral daal mooy ay jàmbur sax xam nga bu fekkoon duñu fayu dañuy balé waaw té li gisuma ci ak togn waaw ak ci kilifa bu jog di wax han da nga yag deg muy wax itam te ngeen yag deg limay wax ci mom han ngeen yag deg limay wax ci mom yag yag ngeen deg may wax ñom badara ak ñom malik nan leen waaw señ bi war na ñew defal ben conférence eh, wa diwan waaw ah, ndax ci tan savant nangam ak nangam té lool deug la waxuma ko pour bëgg lu ko neex waye njabot gi dal dama bëggoon ngeen xamne fofu mom ak yiw rek lañ ñu fa ëmbal loolu bu ngeen ko xamee rek mu baax waaw bu ma gis kenn kuy jéem a wut benn réaction bu jëm ci waxi kilifa rawante naag moom loolu daal laa leen di dénk yéen njaboot gi